dem à l'étranger défendre ko ay naataangoom jàpp ko ne moom mooy champion bi kooku kenn fii am Dubaï dafa am benn sommet parallèle boo xam ne sur l'alimentation en milieu scolaire Sénégal mooy ñuy invité dundal bi président Macky Sall dina fa am taxawaay ministère dina fa am taxawaay dina am bindu leer. président assemblée nationale délégation bi nga représenté Sénégal assemblée bokk ci. ma tënk parce que campagne bi avancé ma tënk ci lan mooy vision bu président de la République président Macky Sall vision boo xam ne dinañ ci nekk di ko appliquer ci ci topp li mag vision bu Macky Sall. dinañ ci toog ci Sénégal parce que dañuy def ay résultats yu am benn ci Sénégal di wax ak sénégalais yi jege leen ba deux mille trente cinq di ko exécuté yàlla dina ko def yàlla dina ci ànd parce que liggéey Sénégal ak liggéey askanu Sénégal moo ñu ci teg lan mooy vision président Macky Sall mooy que deux mille trente cinq Sénégal bu gëndaani xam-xam fii ci Sénégal lañ koy jël ay doomu Sénégal yi jàngi fii màgge fii juddoo fii màgge fii tekki ci jëmale Sénégal kanam ngay ko gisee système éducatif bi ci suuf ba ci kaw. presse scolaire ay des na mais ay dañ koy doon commencé commencé wu ñu dëkk ba am solo mais résultat yi def boo demee élémentaire résultat yi def boo demee secondaire moyen secondaire résultat yi def boo demee enseignement supérieur yi def nga xam ne dëkk boo def département boo dem ci Sénégal am na université léegi tey mais loolu. médicalisé Dakar léegi da ngay am dugg ci dëkk mu tudd 5000 personnes jàng fa école primaire def fa sa collège def fa sa lycée universitaire loolu la mag Sall indi ci réew ci ay yaatuwaay bu rëy toll nii ci système bi dëgg-dëgg ñu gis mooy état la communauté yéeg si seen village ak les parents d'élèves ñooñu ñooy gànc école fii ci Sénégal état def ay effort dinañ ko continuer mais def nañu effort yu rëy mais yi nañ jël seen budget def ci dix pour vingt pour cent mbaa dix pour de leur budget mbaa vingt pour de leur budget dugal ko ci système éducatif déficit yi ñuy am mairie bu ñu defee effort bu ndaw du sotti boo ñëwee Dakar dañuy bëgg a tabax école amuñu espace yenn école yi ci nekk vraiment mairie waaw nañ ko mën a entretenir école yu bëri boo ko demee ay dañu ko def ay cantines bu ñu jógee ne état non Dakar ku wax si seen éducation da ngay wax ak mairie yi am nañu moyens yi wut nañu moyen ci biir école quotidiennement damay xeex. pour que bu ñu jël espace école bi jox ko ay promoteur économique ñu def ci yeneen activité yeneen ñu football ba leneen dina dañ koy exploité non problème bi mooy nañ ko wax commune yi surtout ci Dakar Thiès ay dëkk yu mag yi commune bi nañu investir ni Macky Sall bi président Macky Sall bi investir ci éducation bi bu boobaa amoon bu ñu defee loolu ba pare du am déficit non du am déficit ci jàngalekat yi am na ku ci wax président la benn jàmm ma koy nuyu def proposition léegi pour ñu am ay engagement patriotique civique pour l'école tey bu jàngalekat bu nekk mun mun ñu seetlu mun nañu accompagner collectivité territoriale mais ci ak président ku ci foo am déficit ku ci jël benn quelqu'un bu am le niveau pour mu ja pour mu jàngale ko boo fayee cent mille ñu teg ci beneen cent mille. bu ñu ci tegee délai bi boobu dina am deux cent mille en attendant ñu xool naka lañ koy intégré ci système bi bu ñu ko defee bu ko mel ni defee dina am déficit ci enseignant day fekk yi fekk ñu président da koy wax mooy ci ñiy jàngale nañu am mbiru mais créer seen condition yi ñu war a nekk yëpp créer créer lu ngi def asalaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah